mbokk jullit yi gannaaw bu nu sante suñu boroom subhaanahu wa taala julli ci yonentam ba sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam noo ngi bal xaq ñépp tey balu xaq ñépp yàlla nanu yàlla boole jéggal di fàttalanteeg suñu bokk jullit yépp waxi suñu boroom ji muy wax ne képp koo xam ne ak ngëm yàlla mi ngi ci moom ci xolam mu di ko jëfe ci ay cëram su wax jotee na wax wax jub xocc su boobaa ay mbiram dana jag te su boobaa it suñu borom mën na ko jéggri bakkaaram dal ne ku topp yàlla jaarale ko ci ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallama jàngalee am na la muy wut te jotoon koo wut ak la mu amagut te xamagut lu mu doon tam gën ci moom yaa ayuha alladina amanu ittaqu llaha wa qulu qawlan sadida yuslix lakum acmaalakum wa yaxfir lakum dunubakum wa man yutici llaha wa rasulahu faqad faaza fawzan cadima ñu bokk xam ne ngëmug jaam bi du mën a dëkk ak moom ci lu dul am xelam dafa dal xel mu dalit bokk na ca la koy maye nit ki téye aw làmmiñam bu ko waree téye yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ci ak nekkam daana toogub diir na cell cell ja nag mooy wax daa jotagul rek waaye saa bu wax jotee amul wenn waxtaan wu ab jullit di waxtaanee te xadiis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rootu ci su fekkee ci diine lay wax day mel ne kon mus sa noppi waaye la muy wax la mu doon wax lépp njariñ la gis nañ ko nopp gu yàgg gi lañ ci jublu mooy du def fu mu toll rek lu ñor mu wax lu ñorul mu wax sallallahu alayhi wa sallam waaye ku néewoon ay ree la itam ree foo gis mbooloo ñëpp di tex texi daa am kuy wax wala am ñuy wax bu wax bu kii waxee jox kii bu kii wax bu kii waxee jox kaa te ree ju bari nag foo ko gis la ca yàlla moom bariwul la yàlla moom ci ay wax fi ñu ko dee waxtaanee jooyay bari waaye ree du bari moo taxoon yàlla wax ci alxuraan ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee leen nañuy ree lu néew tey jooy lu bari nañu dem fu ñuy dolli ko ci seen borom tey bañ a toog foo xam ne kex cax jaag cax cax yi daan gàññ fal yadxaku qalilan wal yabku kathiran yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana dénkaane lu bari léeg-léeg mu wax ko ca pénc ma ñëpp fekke léeg-léeg it muy wéet ak nit di ko dénk ba boole ko ca kon daal lu mu daan wax waxee la noppi wax dëgg te noppi wax dëgg te noppi wax dëgg nag soo ko déggee mooy wax ju am njariñ rek ka koy wax dara nekk lu ko ca lu dul bëgg a jariñee mu dellu wax ne texe gu tàmbalee fii jëm ëllëg ñeel na képp koo xam ne yaa moom saw làmmiñ waaye saw làmmiñ moomu la fu ne mu tarxis jëm fa nee na it foo fekk am ndaje ñii fab di dugal di yóbbu ku ne pat mën na caa bañ a bokk daal di lëkkale noppi ci lu amul njariñ ak ku gëm yàlla ak gëm bis pinc te ku gëm yàlla gëm bis pinc am na yu ne ci diggante bi yu bari gëmale na ko mu ne ku gëm yàlla amuk yàlla gëm ne bis pinc ngi ñëw te ca la ñuy faye nit ñi nay wax lu baax su xamut lu muy wax mu noppi nay wax lu baax te yam ca man kaana yuminu billahi wal yawmil axiri falyaqul xayran aw liyasmut daan ne jullit dëgg dëgg nag mooy ji koo xam ne kii jullit yépp moo xam muy dund lim dundagun jullit yi mucc nañ ci aw làmmiñam mucc ci ab loxoom bu fekkee ko fi bàyyi ko walla dundam gépp musu caa wax ab julit luy yëkkati nuurub jëm sakkantu mag di jël ay yoo xam di ci jëf lu koy lor al muslimu man salima al muslimuuna min lisaanihi wa yadihi làmmiñ la jëkk a tudd làmmiñ la jëkk a tudd ab julit mooy ki julit yi mucc ci aw làmmiñam ak lori loxoom lori làmmiñam ak lori loxoom dellu wax ne yàlla yàlla na yàlla yërëm koo xam ne kii saa bu waxee rek nit ñi jariñu tax te bu noppi ñëwee kenn du ko ca kenn du ko dàq noppi ndax noppi day musal nit ci lu bari dal ne léeg-léeg nit wax genn kàddu goo xam ne ba mu koy wax jàppewu ko dara lu am solo waaye mën na caa sëngéem juróom-ñaar fukki at yoo xam ne du siggi inna rajula la yatakallamu bil kalimati laa yara biha ba'san yahwi biha xamsi sab'ina xarifa am na ku mu doon dénk it naa ko del téye saw làmmiñ maa ngi lay dénk nga rafet fexe ba ra- yor jikko ju rafet tey téye saw làmmiñ kon jikko ju rafet làmmiñ wu boroom téye dana ko gunge moo koy gunge sax téye saw làmmiñ dana gunge jikko ju rafet daal di ne wal fa fa wallazi nafsi bi yadihi maa amila alxalaiq bi misliha yor jikko ci rafet téesoo làmmiñ nit ku deful lu ko gën fii ci kaw suuf wax ju am njëriñ jooju nag am na ñeenti sart wax ju am njëriñ am na ñeenti sart bu wax ko jotee ba ci jëkk moo mooy benn kay wax ak moom di ko woo ci lu am njariñ wala mu di ko moytuloo fu njariñ nekkul muy benn wala yow mi wax saa boo waxee ngay wax lu amal nit ñi njariñ benn wala nga séen loo xam ne gënu si ñoom nga di leen ko moytuloo ñaareel ci wax ju am njariñ mooy lu ci nekk nga nekk ba wax ko jot su wax ko soo ko waxee te wax ko jotagut bu jotee dootu am la wax soo négee ba wax ko weesu it soo ko waxee wax amatul njariñ ñetteel ba mooy nga segg ko ba seggaat ko ba mu wóor la ne lu am njariñ la nga wax ko yam ca bañ caa leble bañ caa fayu bon ñeenteel ba moom mu tànn kàddu yi muy wax kàddu ku ci nekk mu wodd ko ba ku ne mën koo dégg kàddu ku ci ne mu wodd ko ba ku ne mën koo dégg muy ñeent lenn ci boroom xam-xam yu yàgg ya nee nañ balaa kenn dem di jàngi wax na jàng noppi ba mokkal ko ba nga xam ne sax bu yëkkatee kàddoom rek mu jar ko ndax nee na su fekkee da ngay wax di laaj aw yoon ñu dala tegtal ku ne naan maa ko xam maa ko xam maa ko xam fa wax fu wax am na fa njariñ ndax dañuy tegtal foo xamutoon waaye nee na la muy am am njariñ noppi moom dalay dalay musal moom ndax bu ñëwee ne ku ko fekkee woon ña ña ña wax la ñuy yóbbu wala boog ñoom la ñu war a yóbbu ndax léeg-léeg nga dégg ku ne diw ñoom moom li ñu soxla mooy maa fekke maa fekke ne ku ko wax dootoo mucc dañ lay yóbbu ak ña ña fekke woon ñëpp te wax li nga wax ba ba ñuy gis ab safaan moo tax waroom xam-xam yi juboo nañ ci ne ku ne war naa jàng ba mokkal ko rub xawuma ko xawuma ndax ku ne xawma mën a tase ku xamal waaye lu ci nekk nga am ca xam-xam bëgg ca wax ak nit ñi léegi te ñu tàmbali laa laaj loo xam ne yuur ak ndox ndox dong ngay féetewoo ak ak wokk ndox nit war naa mokkal xawma ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba muy waxtaan ak waa pénc mi dafa tàmbalee waxtaan wa tey jii lu ma laaj lu ma waay laaj ma tontu la niwut lu ma waay laaj xam naa ko de niwut lu ma waay laaj xam naa ko dane lu ma waay laaj danaa la tontu am na ñoo xam ne nag dañ leen a war a fay bu ñu fekkee jotaay ñu bañ a bokk ci ñay laaj noppi ndax laaj dafa am ay xeet am na koo xam ne buy laaj daa bëgg a xam daal am koo xam ne werantekat la lu ci nekk da cay laaj ñu bare bare bare bare te du jàpp benn te moom ci boppam sax du wax lam xam am na ñoo xam ne dañuy laaj ngir weddi nit ki am na ñoo xam ne dañ koy laaj ngir ñaawal ko yaar yi ma mujj a wax nag daje ci kenn kooku ne ko dama bëgg nga wax ma nu ma tudd ak nu ma sant ak fu ma jóge ak fu ma jëm loolu wuute na lool ak lu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon waxtaane waaye ku yàlla xamal mu xam wa allamaka ma lam takun taalam wattaqu llah wa yuallimukum llah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko diw nga tudd waaye sant wi ñu lay moomale moomoo ko ndax ki ñuy wax na mooy sa baay du sa baay ci mooy yàlla nga jóge bi nga ñëw fii te boo jógee fii sa war a nga jëm riwaayaat yi bari na ci waaye am nañu wax ne daa romb ak garab gu mag xiin bi sàqi mu daja seelu garab ga daanu ci kawam ñii ne ab miir a daanu ci kawam ak mu jëm daal rafetul moo tax aaya ba ne yaa ayuha alladina amanu la tasalu an ashyaa in tubda lakum tasukum laaj moomu nag li muy yomb yomb tontuy laaj a gën a jafe li muy nuru yomb lépp am na ñooñ dañoo war di leen fay ñu bañ a laaj ndax nañ dugg duggale nit ñi waaye am na ñoo xam tam dañoo war a fay ñu noppi ci bañ a tontu ay laaj ndax lu ne ñu mën ca war caa xam dara lu ne ñu xam ca dara léeg-léeg da nga naan xawma kon ñeenti xeet yu am njariñ ci wax am na juróomi yëf juróomi xeeti wax yoo xam ne ku bañ a tarxis ci wax na ko yóbbaale ba ci jëkk mooy wax ba àggal ñoom lu tax lu tax nga wax li loo ci jublu lu ci sa yoon ndax li ngay wax sa yoon a ngi ci waaw walla déet yaa amee tontu li loolu kuy wax ku ne war na ko bàyyi xel ñaareel bi it ndax bi nga waxee wax ja am na njariñ waaw walla déet ndax dana jariñ dara ñetteel ba boo ko waxutoon lu muy wàññi loolu ku ku bañ a daan ci wax bay ba nga moytu ko soo ko waxutoon nag nag ñeenteel ba mooy diw te ngaa noppi woon bañ a wax ku ne war na ko moytu ci biir wax juróomeel ba mooy ku bañ a tarxis ci wax na féetewoo subhanallah walhamdulillah rek alxuraan ca la bokk ay azkar ca la bokk ba lu ñor xom ñëw loo xam ne saa boo ko waxee nit ñi danañ ca jariñ mag ñi doon nañ jàngale téye saw làmmiñ ci ahadis yi ma jàngale ma doon jàng léegi jële ko ci njàngale mi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jur yi nga xam ne dañoo dëkk ak ñun ñuy woroomi donc am na ci worom donc yoo xam ne ñoo ñun a dëkk waaye fu ñu jëm bu ñu fa amee yitte seen tànk la ñuy doxee dem fa léeg-léeg ñu naaw léeg-léeg ñu yàkkamti ne ñukk ñukk ne për waaye për ji du yàgg ñu ne cëpp fële për cëpp rek lay mën a doon waaye am na si ñu dëkk ak ñun ñoo xam ne moom fu ñu jëm ci seeni yitte dañuy naaw ñu bokk di forandoo ci walandoo bi ba yàgg kii dëkk ak nun tey dox ak i tànk fu mu jëm dégg kay naaw naan daa bëgg a tuxu dem feneen mu ne ko doo ma fi bàyyi mu ne ko nu ma la yóbbalee mu ne ko booy dem ma jàpp ci say tànk rek mu ne ko ay ca bis ba ñu jàppee bay dem nag ci njàngaleem mag mu ne ko da ngay ŋànk ñeeg sama tànk yi rek ci sa ñeeg moom gémmiñ a koy def ak gëñ bu dee njanaaw yooyu amuñu ay gëñ waaye ay sàll lañ yor ñu kepp ko ci sàll wi kepp tànk yi ci sàll bi mu ne për dem ak moom biñ tiimee ab dëkk ñu ne guléet ganaar de xam ci dox ci kaw suuf si dañ ci xamoon waaye ganaar guy naaw de guléet ñu gis ko adduna dana indi lu nekk ki ko yor dinaa wax moom ne ko bul wax de noppil toppal sama ndigal boo bëggee ma yóbbal la fa ma jëm ñoom beneen dëkk ñu waa penc yëpp daje ne ku ne woon ko sa moroom ne mosuma ko gis ñu ne mas ñu ne mosuma ko dégg man wax dëgg yàlla ba di ko teg bët tey laa ko gis mu ne ko bul wax de dëkk bañ mujj a romb bañ ne guléet ganaar guy naaw di romb ay dëkk ku ne naan ma nga nee fam naan lu ngeen lu ci seen yoon bàyyi tànk yi na cëpp al kon boo ki nga xam ne moom wax nga ko li nga bëgg mu di ko def ne la tiir ci samay tànk te bul wax ñeegal rek kepp bu dëgër junj junjat bam naan lu ci seenu yoon la ne wadd te fa mu wadde dafa kawe kon bokk waxa nga noonu ku laxasoon jàng gi ñëw na ne baayam ñëw naa de fekk leen fa ñuy ngoon na la ca ëtt ba léegi la si xew la xew ëtt bi bu ñu toogee ku ne daa am lu muy yor di xool la muy xool waaye bu njëkkoon ñëpp dañuy toog ci ëtt bi bu ñu reeree ba noppi toog di déglu mag ñi ba mu ñëwee nag ñu gàttandu ko toog fañ doon reere indil ko reer mu reer na ñoom foofa mu ne bàyyi dem naa ba dikk de mu ne ko loo jàng léegi si la ñuy natt am njàng ci am na këyit sàngam ak sàngam ak sàngam waaye mag ña bu ñu daan natt xam-xam salma chita lañ daan wax dañ daan salma chita laa mu ne ko baax na daa guddi waaye bu subaa boo xëyee xam nga dëkk sàngam mu ne gëj naa fa nag mu ne ko yoonam fa mu nekkoon ba nekk ba léegi si fa la yoon ba nekk soo xëyee doxantul say tàllal say tànk rek jëm fa bu sëlmay takku sax nga wàññiku te loo gis ci yoon wi nga bind ko ëndaale ko bi muy génn ci dëkk bi rek daa gis ndox suuf ci ginnaaw salaan si ndox suuf lu génn ci am pax am ñangoor ni ticcat yam ci moom wàññi ko waat bëgg dellu ci pax mënu caa delluwaat mu tàñaañaat jàll dox ba yàgg mu romb ndox moo xam ne ndox mu ndaw la nit ñaa ngi cay xuus di lab ku xuus lab ci ndox si mu gisaat ndox soo ndox moo xam ne mii mu bari la ñëpp di xuus di jàll takkusaan jot mu jël takkusaan wàññi ko ñëw fekk bàyyam fa mu ko fekkoon biig mu ne ko loo gis mu ne ko li ma gis dara dara gisuma dara gis naa daal jaan joo xam ne daa génn ci baax mënut a delluwaat mu ne ko loolu loo ci jàng mu ne ko dara mu ne ko wax nga gis wax muy dox nga gis wax muy dox nga gis bu xase ba génn jeex na du ñëwaat ndox su ndaw si nit ñiy xuus di lab nag mu ne ko loo ca jàngee mu ne dara kooku su su jàngutoon xawuma ko dana jafee waxal ndax salman si itam moom daa mel ni laf na téere yi waaye daa jàngale xawuma ko loo jàng ci ndox su ndaw si nit ñi di xuus di ca des mu ne xawuma ko de mu ne ko mooy bokk gu ànd ku ci dugg mën nga ca des mu ne ko ndox mu bari bi nit ñuy xuus jàll nag mu ne ko mooy bokk gu àndul ku xuus mën ngaa jàll yàlla nu yàlla musal ci wax ak ku ayam te yàlla nu yàlla dimbali ba saa su nekk la ñuy dégg ci ay wax lépp di wax yu am njariñ yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina amin